bu amé xel rek xamné mom moom sant yàlla ko war ndax yàlla toujours bu melalé la création bind gi bind doomu aadama bari na ci ay yo xamné daf ci tek ne moko jox dégg jox ko gis ak xol naka nonu da ngay dégg mu nan waja'alakum samaa wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun mo len jox dégg ak gis ak xol waye ñi sant ñu néew lañ waxna na feneen yamalu ala daawuda shukran wa qalilum min ibadiya shakur jëf leen jëfi sant yéen ñooñ daawuda waaye daal ñii néew ñu sant lañ ñi ñi ñi sant ñu néew a néew lañ kon sant moo tax ñu bind ñu jaamu yàlla gi ñu def yëpp jëriñu yàlla dara yokk ko dara lu may ne ci ñun lay dellu si te loolu liñ ci war a déggee mooy ne cant jaamu yàlla gu mat sëkk la boo demee ci kitaab uh, mi'raj tashawuf ila xaqaayiqi tasawuf bu ibn ajib al numéro 7 daf ko def ci a shukr mu koy définir di wax ne mooy mbégte gi nga xam ne xol bi dana ko yëg bu xéewal wàccee ci jaam bi te nag nit ñi jëmbalee shukr sant googu mooy mu feeñ du em rek ci làmmeñ waaye dafay feeñ ci ay cër nekk hommage boo xam ne dañ koy delloo ci ki nga xam ne moo ñu xéewal mu yàlla sant nag danay feeñ ci làmmiñ wala mu feeñ ci ay cër ni ki jaamu yàlla yi wala ñu fas ko ci xol moy di seeru xewali sub borom subhanahu wa taala te bokk ci ñi imam Junayd di di wax ne duñ jëfëndiko xewal yi leen yàlla jox ci moy yàlla mukk cant nak amna na cant bi mbolom yeb bok moy shukrul amati lolu sant ci lamay daf ci doy shukrul khassa moy ñi moy sant go xamne da fay ànd ak khidma bil arkan da fay ànd ak jëf ak jox farate yeeg naafile yi sant xaasatul xaasati nag mooy ñi nga xam ne dañoo lab ci aji xéwal gi romb nañ fi xéwal gi mais lab nañ ci aji xéwal gi boo demee ci al awaarif da nga dégg borom téere ba di wax ne mooy lab ci ki nga xam ne mooy aji xéwal gi waaye dépassé nga sax xéwal gi yow ci boppam da ngay gis ne kon borom xam-xam dañuy wax ne dañ am na ci ñuy fasale diggante shukru ak hamd maam alaaj Abdoulaye ci ndawam benn bés tàggu na bàyyam ne ko dafa dafa dégg ne dafa am téere bu ñëw Saalum di wax ci fasale diggante shukru ak hamd moom laa dem uti ñu ne bàyyam ne ah Abdou mi bëgg na xam-xam kii de xam naa ne bu amoon bu ma ko mayoon digal dana dem Mauritanie jàngi ñu ne bi mu ñibbisee ñu nettali ko wax ji mu ne mu ne bàyyam bàyyi li ma dégg ne moom nga wax boo ci dogoo rek ma dem léegi gànnaar jàngi mu ne ko déet Abdou toppatoo ma rek boo demee ba gisatoo ma Mauritanie dana ñëw ci yow jàngi si boo demee ba gisatoo ma Mauritanie danañ ñëw ci yow jàng si waaye yaakaar naa ne loolu moom yàlla dëggal na ko rawatina ci doomam ji nga xam ne mooy Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu sant nag dafay dolli xéewal borom bi subhanahu wa taala moo ñu wax ne wa id taadana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid surat ibrahim verset 7 di wax ne bu ngeen santee seen borom mu dolli leen bu ngeen ko weddee nag moom mbugalam lu tat la kon nga xam ne mën nañ di opposé di utale diggante sant ak weddi ñàkk sant xéewal yi genn wàll weddi yàlla la waaye am nañ ay ndimbal ci sant yàlla ñaan danay dimbale jaam bi ci muy sant euh, di fàttaliku xéewal yi la yàlla jox di fàttaliku fàttaliku màggaayam gi ak yaatuwaay yërmandeem ci ñun mën nañoo xiir ci ñu koy sant waaye di xalam ci xéewal yi ñu jox te jox nañu xañ ñeneen bu ñu xoolee ñiñ tane loolu danañu xiir ci ñuy sant yàlla Cheikh Ibrahima wax na ci benn xutbaam ne am na benn waay buy jàmbat nu mu ñàkkee di ñaxtu am ku ñëw ci moom ne ko bëgg a dagg sa benn loxo bi jox la ay junne dinaar mu ne ko déedéet mu ne ko ma dagg sa bu càmmooy bi noonu déedéet ma jox ma sa ma dagg sa tànk càmmooy bi jox la ay junne dinaar mu bañ noonu la ko toppee ba cër yi mat mu ne ko nga toog fii di ñaxtu ne yàlla defaru la dara te ci saa si rek proposé naa la ay junne junne dinaar nanguwuloo ko kon dëgg-dëgg wa in taoddu ni'matullahi laa bu ñu doon jéem a léem lim xéewal yàlla yi duñ ko mën a léem ndax yaatu yaatu ci ñun euh, bokk na ci sant yàlla dëgg-dëgg di fataliko di xalam ci lottu gi ñu lottu ci sant yàlla boo demee ci charx bi Saïd Ramadan al Bouti def ci xikam xikam al ataaya bu ibnu ataayillahi Sekandari mi ngi nettali dialogue bu am diggante yenentu yàlla Moussa alayhi salaam ak suñ borom Moussa ne yàlla man daal bu ma demee ba toog pour sant la rek gis ne lott naa ci sant la ndax sukun dal gi ma am tranquillité gi ma am xéewlu gi ma am ba toog naan dama lay sant sax ci laa ko jëlee ma gis ne daal ma ci cant gi dara ma mujj am kersa mu ne borom bi subhaanahu wa taala ne ko lott gi nga lott ci sant ma mooy jëmmi sant ma gi nga lott ci sant ma mooy jëm jëmmi sant ma may doon foog ne loolu waxi borom xam-xam yi la ñuy nettali wax yonent yàlla Moussa ndekete dañuy gëstu pour yaatal xam-xam rek waaye Cheikh Ibrahima wax na lépp mi ngi wax ne laka alhamdu yaa man aynu ajziya hamduhu idin nicmatul uzma laka alhamdu wa shukru cant ñeel na la yow mi nga xam ne sama lottu ci sant la mooy sama jëmmi cant ndax loolu mooy xéewal gu mag gi lottu ci sant yàlla xam ne yàlla rek mooy sant boppam te sant moom la ñeel laka alhamdu hamdu nafsi li nafsi dunahu talaasha jamia rusli laa siyama alxayru mu ne yàlla ñeel na la cant cant gi jëmm ji di sant jëmm ji camp sant gog nga xamne da fay labal ci biram yenentu yi rawati na dul yenentu yi moy cant gi nga xamne mom la yàlla di sant bopam deug deug bépp cant yalla ko mom alhamdu mutlaqan li daatil bari sant gi ñi santante ci suñ biir sax ci yàlla lay delu ndax ñun dooñ dara ci mbiri mom la baye doon wax ceerix la gànnaariya an al arifuna imbasatu is xumidu walaw bi gayri wasfihim is ذاك من الحق Euh, mu ne aarifuna billaahi yi dañuy bég am bastu buñ leen taggee ndax dañuy xam ne li ñu leen di taggee moomuñ ko waaye melokaani borom bi subhaanahu wa taala lañ gis rek di ko di ko jéem a melal loolu loo tax ñuy bëgg ci cant gi waaye nekkul ne xéewal gi wala cant gi moo leen moo leen bégloo ah nag am na xaqiqatu shukri mooy ñu mooy kii sant te moom romb na fii sant ngir xéewal gi mais dafay sant ki xéewale ki nga xam ne mooy borom bi subhaanahu wa taala te bàyyi tel nañu ko jàngal boo demee ci ruuxul adab laa tafraxan bi an'amin un'imta wafrax bi man an'ama in aqalta bul bég ci xéewal guñ la xéewal mais bégal ci ki nga xam ne moo la xéewal fekkee ne am nga xel loolu yëpp xaqiqatu shukri ci la ñuy jéem a delloo maa ngi amee fi benn lettre bu mu bind alxaaji ma abdu di ko wax ne ko maa ngi gis ne yow bëgguloo ci xéewal gi mais da ngay bëgg ci aji xewal gi nga xam ne mooy yàlla subhaanahu wa taala te dëgg dëgg loolu moom Cheikh Ibrahim moo ko moo moo ko def ci moo ko def ci ñoom am na beneen lettre bu ma fi yor mi ngi ko bind kenn ci kàngami Mauritanie yi ku ñuy wax uh, wajjaaha bàyyi mi ngi koy wax ne ko na góor góorgóorlu ci sant yàlla ci sa xol ci sa xaal ci sa làmmeñ ak ci sa maqaama te nga xam ne bépp jaam lépp lu ñuy def rek cant moo ci gën na nga góorgóorlu ba nga àgg ci dëgg xaqiqatul xamdi nga yegg ko nga yegg ca kon wax nañ ci xaqiqatu shukri waaye xaqiqatul xamdi tamit am na loolu moom xam naa ne ay junju rek lay doon waaye duñ ci mën yaatal Cheikh Ibrahim wax ci baytu yu rafet yoo xam ne mooluñ suma ñu mool ko fenn fi muy waxee Muhammadu maana maana zaati bal hamdu zaatihi yakfi salaatan an yuqaala Muhammadu falawlaahu ma kaana alwujudu walam yakun li yudhirahu نعم محمد تعرف فيه الحق من قبل آدم ومنه فيضات الجميع محمد إلهي أنني منه ما فوق منيتي أكون به عبدا شكورا محمد شيخ إبراهيم mu أنني منه ما فوق منيتي أكون به عبدا شكورا محمد يا yàlla يا الله may lu kawe sama càkkutéef ma nekk di jaam bi ma nekk di ku ñu sant ma nekk di Mouhamad boo continuer ci biir da ngay dégg mu naan fa sirri Mouhamadu sama mbóot mooy yonentu yàlla Mouhamad foofu bàyyi ngi wax ci beneen dimension yi cant boo xam ne dëgg-dëgg aarifine yi cant googa la yootu yóotu euh, yonentu yàlla Mouhamad sallallahu alayhi boo demee ci euh, téere risaala bu imaam Abul Qasim al Qushayri da ngay gis muy nettali indi benn xadis di nettali ne ndey Aïcha radiyallahu anha moo wax ne benn yonent bi dafa tëdd ak moom benn bés ci ñu bokk benn mbàjj mu toog ba mu yàgg rek mu ne bërët jug dem di julli di ñaan di naafila di julli di ñaan mu ne di jooy ba dënnam bi mi ngi fees dell ak ay ronqañ yonent bi dafa julli ba bilaal ñëw di oote pour ñu julli fajar nde Aïcha ne ko yow yàlla ne na baal na la see bàkkaar yu njëkk ak yu mujj li nga nekkee nii metti na mu ne ko afala akuna abdan shakura ndax du ma nekk di jaan di jaam boo xam ne dafay sant moom la bàyyi di wax ilaahi anilni minhuma fa community akunu bi abdan shakuran muhammadu moom la Cheikh Ibrahim di mébét yenentu bi ne ko yàlla moo wax ne baal na ma sama ma bàkkaar yu njëkk ak lu mujj waaye bu ma xalaatee fi muy wax ne inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi leyli wan nahaar la ayatin li ulil albaabi rek dootuma mën a téye samay ronqañ moo ne yàlla mu ne ci bind gi mu bind asamaan ak suuf ak ci utale gi muy utale guddi ak bëccëg ay kawteefam ci ñaar ñi nga xam ne ñooy borom xel yu sell yi mu ne ay bobu lay xalat motax muy joy joy yu yu métti yi euh Cheikh Abdoulaye Dièdje bi daf dal wax ne kenn mënta àgg ci xaqiqatul xamdi ci dëgg-dëgg cant te àndoog baay pour nga am àgg ci dëgg-dëgg cant il faut nga ànd ak Cheikh Ibrahim mi nga xam ne Abdul Zaati wa Madarul Asmaai wa Sifaati ci loolu Cheikh Abdoulaye mi ngi wax ci الحمد لله ماني لا هاء ولا ألف والعبد هاء وهمز ثم ماني بذاك بذلك الجمع قد صار الكم بذلك الجمع قد صار الكمال له فرقا وجمعا وجمع الجمع في آني لولو خمنا ني جونجو كو ريك لا ني مانا ديف واخ سوني لامن لاتو سي واخ سي واي ميغي لاي دالو ريك سي بي بو فاربا اك سي فاجك جام بيغا خمنه ci lañ mën a àggee ci jëmm ja ci lañ mën a àggee ci dëgg-dëgg yi dëgg-dëgg cant ci lañ mën a àggee ci am farqu am jamo àgg ci jamul jam yi ci benn jamono loolu nag mënta am ñu dolli ci waxi misiri lu may dañoo àgg ci la misiri waxoon moom tamit ñu jokk ci ki nga xam ne heure bu ñu ko xalaatee rek dañuy ñaan yàlla sant ko ci moom lim ñu xam bi mu ñu xamatee ba ñëw ci bàyyi muy jaam boo xam ne tadahuruhu tadahuruhu wa abdun ak feeñ-feeñ loom jaam la de waaye dëgg-dëggam sang la kon li Cheikh Abdoulaye wax rek laay dëggal ne kenn mënta àgg ci dëgg-dëgg cant te ñëwuloo ci Cheikh Ibrahima radiallahu anhu loolu moo tax ab taalibeem nag jeexitali cant ci moom daf cee war a bokk mu aw ci yoon wi ñu bàyyi tracé lettre bi mu bind am na lettre bi mu bind waa Thiamène ne leen maa ngi leen ci waa Kousi waa Teebeñe seen ak waa Teebeñe ngeen na ngeen sant yàlla bu baax bi mu leen wommatee ngeen bokk ci ñi nga xam ne yéen a jiitu ci fayda bii te ngeen góorgóorlu bañ a taxaw bu ngeen yéexee raw leen na ngeen sant yàlla li mu leen xommat ci faydu bi te ngeen bañ a taxaw kon naka la taalibe Baay war a sant yàlla mooy xommatu ci li Baay nekkoon fexe ba duñ daanu mukk ci ay chatxa ak ay bébbant ndax fa tuuqidanna fa tuuqidanna al fayda fi baldati fi saairil buldaani mi ngi koy wax ci woyam di wax ne nga yéwénal tamit sama mbooloo ba nga xam duñ bokk ci ñiy wax ay def ay chataxaat yoo xam lor rek lay indi boo demee ci nawaadur xikam digal yi ñu digal ci ni ñuy sante yàlla bokku na ci gannaaw buñ sooboo ba yegg ci yàlla te dox baangi doga tàmbali te dox ci yàlla amu fu mu yam ñu rafetal jaamu yàlla gi lu ko may rek mu ne danañ soobu yoonu halkare bo démé ci nawadul hikam ñenti beyti yi fa njëkk indi nga xamné 1930 lako bindu gis na fu mu ko bindu ci bindu loxom laqad khaba majdubun saxa wa lam yuhsin at taati ma la anil huda faman balagha al-matluba falyasa shakiran wa illa fajazmu jazmu ruuxi nahju ulirada ko xass jot ciakute fam mu yàgg ci yàlla nay dox ci sant jaamu yàlla yëpp nag na xam ne cant la rek lu ko may nag mu ne roxoom dana dagg mu soobu yoonu xalkare yàlla nañu ci yàlla musal Baye mi ngi wax ne bugguma ci yéen fay bëgguma ci yenn benn salaire sama mébét ci yéen taalibe yi moo ngeen nekk di ay jaami yàlla mu ne bu ngeen ko defee rek jot ngeen egg ngeen ci dayob teral ma teraanga gi nga xam ne moo gën a mat waaye nag ku wax sant danga wax muñ ndax ñaari opposé lañ dañ leen ne opposé alquran sax danga gis toujours muy indi sabar ak shakur am na ñeenti aaya yoo xam ne dafay boole ñaar ñooñu muñ tamit am na muñ yi ñi doog a tàmbali am muñu al xaasatu am muñ yi xaasatul xaasati ñi nga xam ne ñoom la seen lisaanu xaal euh, pay ñoom la pay bi di waxee ne wasbir wa ma sabruka illa billah muñ leen seen muñ ci yàlla rek la tegu ñi doon nag mooy ñi nga xam ne buñ amee sant buñ ñàkkee muñ ñu baax leen buñ leen nattu dalee ci seen kaw ñu boole nañ ñaari cër yëpp bàyyi ak ñu koy wax ci wayam di tagg bàyyam naan bi xazwin wa taalimin wa xajjin wa umratin wa qad aasha shakur wa aasha shakuran wa wa qad aasha saabira sama bàyyi xare na aj na omra na gàddaay na dund na ci muñ dund na ci cant kooku bokk ca ponkali góor yàlla yi dundam yëpp ci loolu la ko def waaye bàyyi ñuy jàngal ne muñ nattu yi dafa bokk ci li góor yàlla yi di rawante bàyyi ngi wax sax ci wayam ne wa in kaana yarqaa bilbalaa'i muhabbabun fa bi shukri arqaa fa bi shukri fa bi shukri arqaa mu ne bu dee eh, am na ñoo xam ne ci nattu yi lañuy ñuy yéegee man de ci sant ci laay yéegee fa bi shukri arqaa fawqahu ci kaw ñooña sant yàlla ci laay kawee ci kaw ñi nga xam ne ci muñ lañuy yégee man ci sant yàlla ci laay yégee bi shukri arqa fawqahu shakiran yada boo demee ci euh, kanzul aarifina mooy diwaan boobu si Muhammad mujj dajale yenn bayti bàyyi yi nga xam ne moo luñ ko woon da nga fa fekk da nga fa fekk bayti yooyu ñàkk sant dafay indi dafay tax nga ñàkk xéwal ibn ataala secondary yi nee na sant mooy buum gi nga xam ne moom ngay yeewee xéwal gi la yàlla jox ba tax doo ko ñàkk waaye Cheikh Ibrahim lépp lu mu jàngale rek moo ciy jiitu ni mu nekkee muñkat am nañ ci exemple yu bëri lettre bii ma tiim mi ngi ko bind 1927 bi ni ko laaj ma Abdou di ko wax ne mujibu li alaamu bi anni ala al ahdi wal widaad wa anni ala xayrin wa salaamatin wa niamin min allahi daafiya wa min adami ma mën na ma mën na alayya almannaanu anni tuwuffiya waladi abubakar والحمد لله على هذه النعمة الجسيمة فلا أرجو في, هذه في هذا العام نعمة أكبر منها xam nga ñun dañuy am nattu ñi ci gën a doogóor mooy ñi koy muñ waaye am nattu di ci sant yàlla loolu dëgg-dëgg Cheikh Ibrahima ko mën ku yàlla tànn rek moo ko mën am na beneen lettre am boo xam ne 1937 la ko bind moom Cheikh Ibrahim radiallahu anhu bu li ñu cëralee matin rek ngeen wax ñu de lettre bi 1937 la ko bind bi ko Sidi Ahmed Soukéri mi ngi koy wax évolution doomam yi ñoom ñëpp ci alquran ñoom ñëpp ku ci nekk fa sa àlli wa toll mi ngi ko tëjee di ko di wax nattu yi ko yàlla nattu moom bàyyi ah ñi ëpp nattu ci jaam yàlla yi mooy yonent yi ak wàll yi ak ñi baax ni ñoom bàyyi ne ko suma njaboot gi eh, nattu yu metti dafa dal sama kaw ci sumay kaw njaboot gi alxaaji abdoulaye mi ngi feebaroon lool ci ndawam ba am jeexital ci ci loxo nday joorom ahmadou am accident ci bëti ca nday joorom suma doom bi ñuy wax omar ñu bëri xamuñ ne bàyyi am na doom ji tudd omar feebar ñàkk ñaari bëtal yëpp waaye seetal li bàyyi daane lettre bi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun walhamdulillah nga lim nattu yu rëy yi dal ci sa kaw ba pare tëjee wax ji alhamdulillah nga xam ne kooku moo mën a yar ku mel ni cheikhaani bi wax alhamdulillahi ala sarraayi walhamdulillahi la da darraayi ñi ngi sant yàlla ci xéewal yi waaye ñi ngi sant yàlla tamit bu lor wàccee ci suñ kanam te bàyyi jàngale na ko ca njël boo demee ci ruxul adab إذا رأيت مظهر الجمال لا تطغى ورد مظهر الجلال bu feeñ waay bu taaru bu neex feeñee ci sa kanam bul bew na nga gërëm yàlla te xam ne feeñ bu naqar yi mën naa teew ci sa kanam noonu la bàyyi mel boo demee ci Rihla Conakry ya euh, nga gis ne njëkk muy dem ci tukki moom 46 njëkk mu dem ca tukki ma bàyyi naj Mouhamed Zeynabu génn na àddina njëkk loolu sëñ Ousmane Ndiaye génn na àddina mu dem ca biir tukki ma alxaaj ma abdu génn na àddina bam naan faqat fuqidat ami bu durun indaha sama at mi dafa mel ni dañ koo amputé mu manqué ay weer ay bam naan yàlla laa tadarha xaawiya yow yàlla bul bàyyi Medina mu wéet latifu ya latifu ya latifu sakkin liya sadmata la axifu yow yàlla yow mi aji ñëweeti yow mi aji ñëweeti dalalal choc bi ma am waaye man kat du ma caalit mukk man du ma caalit mukk waaw بامي وخ ماي كو يالا ماي نان لم ادري موجب السياحه التي قهرني المولى لها وعلتي قد برئت قبل بلوغ الحلم وفقت في العرفان كل القوم لكن ما فعله جليل جليل هو الجميل إذ هو الجميل قاموا لي على جبل سما من دلو سما توكي بري واي يالا مي اجيتا مي ماغي مي اجيتارو لوم ديف رك لو تارو لا تمان غرم ناكو مرادي مراد الحق والعبد كالقلم لا وقت تاميمي ام رفت بو مال القلب حب الحاشمي دنا نتي نيو kon lépp lu feeñ ci kanamam rek moom Cheikh Ibrahim gërëm na ko ndax na nee na léeg-léeg ah, ah, mix na léeg-léeg niq ma ñëw ab nattu ñëw fekk ci ronam min xaa ci ne may yàllaa ci nekk boo demee ci lettre bu mu bind 26 septembre 1933 bind ko Cheikh Mouhamad Saïd mi nga xam ne doomu Ahmadou la muy doomu Cheikh Mouhamadul Hafiz Chinqiti micro bi baaxul de hmm? ci suuf lettre boobu bàyyi bind Cheikh Mouhamad Saïd di ko jaale kàngami Mauritanie yi ñëwoon ci fayda bi fii am ci ñett ñu génn àdduna ku ñuy wax xatar ku ñuy wax Abdoulaye ay ku ñuy wax Cheikh Mouhamadou Hafiz ibnu Maham bàyyi naan gisuñ ku mel ni moom ci suluk ci soo ci ak ci jëzbu ak ci baax ak ci dëddu àddina bàyyi ne ko nag waaye man nattu la yoo xam ne xéewal laa gis ne moo ne ci ronam ndax njëkk muy génn àddina dama géntuñu ubbil ma xabru yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi ma toogaat ay fan géntuñu ubbi xabru ba beeñ ba fa ne ma nga nekk beeñ bu weex tàll mel ni beeñ mel ni dañ koo lay ma gis ñu dañ ci fa Mouhamadou Hafiz ibn Mouham mi nga xam ne moo génne àdduna fii ci Kossy ma xam ne kon lii natt la boo xam ne ci ronam ay xéewal moo fa nekk loolu yëpp bokk na ci jeexital yi santkat yàlla yi ñu amee sant buñ ñàkkee du yem ci muñ rek waaye dañuy sant te Cheikh Tidiane mi ngi wax ci jawaahirul maani ne ñett ñoo am ah, farax bin ñaama ñi kii bëggee xéewal gi فرح بالمعين كي بيجي أجي خيون جي كي يلا أكيا قمنا مم الرضا بالله ترى يجي يجنا تي جرم أك يجنا تي جمين جرمانة لو يلا دفرك جرم نكو قنا موي كي وحنا لبا وحرك مرادي مراد الحقي والعبد كالقلم تمام من قلم بقولنا كي تنا جواري برم برك فما جمال رك فلا جم طريقة جان دفتي طريقة الشكر طريقة سمت يلا لون موتاخ مو يومبو ودمي ابن مبوجة برم ميزاب مي وحنا بلا خلوة بلا خلوة ربا وربا بخلوة فشتان ما بين اليدين مال هذا يلن غوري على يلن طرق صوفيا دانيو يري تي اي خلوة يمتي تم آه، شيخ تياني نك موم نيو يار تي دو خلوة يار يار بو يومبو تي ريزولتا بي غنا ياتو ريزولتا يلن غوري على خنا رك دا فاي نيروك لي مادام تياني عثمان تاكي اون مولا شيخ ابراهيم تي ديوان بوبو موي ميرات العشاق نان ان كان ارشد غيره تلميذه ب بتقشف وتصفح الاوراق مع خلوة في مدة ممدودة هذا هداه بحضرة الإطلاق بني كلن كرد باي يرنا تالي بيم تي نيغاس نيغاس لو تي لك قوبك دك تي يال باك يير برود جيخ باي دي دافلاي بام خرك نغا دوجو تي بي يالا بوغ بويل با دافلاي يوبو با تي صبروم ياغي ني صبروم ماغي ني كون نك موي طريقه الشكر خنا موتاخ شيخاني دون واخ فحطني بلا كد ولا برياضة فإني عذرني الرياضة والكد يرمى te du ma def exercice yu métti du ma def heure yu métti ak coono yu métti ndax man damaa néew doole loolu yëpp attanu ma ko dafa xam ne bàyyi mooy jëmmi yermande rek moo tax noonu la mën a ñëwee ci kanam Cheikh Ibrahim radiallahu anhu boo demee ci arab ibnu saayih mi ngi wax ne tariqa tijaan mooy tariqatu shukr moo tax amut ci ay xalwa amut ay coono yaram seen dox doxu xol la ba tey mu dugg ci waxi bàyyi rek seeru fi manhajina tijaan yi madaaruhu bil qalbi lal abdaani yi la mu waxoon fële ci rihla gànnaar ya ne suñ dox ñun ci yoonu tariqa tijaan doxab xol la waaye du doxu du doxu ay jëmm ba tey ci wane ne tariqat shukru ca la mbir yi nekk bàyyi ngi indi ci kaasiful albaas waxi Cheikh Abdou Aziz Dabbaax muy wax ne yoonu tariqa yoonu sant mooy yoon wi des ci yoon wi yóbbu gaa ñi ci yàlla ndax mooy yoon wi yenentu yi jaaroon ak saali ak tànneef yi ci mbindeef yàlla yi ak ñi ñi toppoon ci seen gannaaw ci yoon woowu lañ jaaroon Cheikh Tidiane radiallahu anhu di wax ne yoonu sant benn yoon moo des ci yoon bu yóbbu nit ci yàlla mooy yoonu sant mu ne moo tax seytaanee dem toogaanu fa ndax moo wax boo jàngee suratul araf bi muy challenge di defee yàlla qaala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim yow yàlla da yow yaa ma beeloo waaye danaa dem toogaanu sa gaañi ci kaw yoonu njub pour wàccee leen danaa leen ñëwee kanam ñëwee leen gannaaw ñëwee leen ndeyjoor ñëwee leen càmmoñ te da nga fekk wala tajidu ak sarohum shakirin wala da nga fekk ne ñu ëpp ci ñoom wala tajidu ak sarohum shakirin da nga fekk ne ñu ëpp ci ñoom duñ santaakoon duñu sant yàlla kon nga gis ne cant mooy yoon wi gën a wér ci yoon wuñ mën a jaar pour àgg ci borom bi subhaanahu wa taala boo demee ci xikam ba tey bu ibn ataillah numéro 196 dafay wax ne xéewal warta tax ñu fàttee sant borom bi ndax yàlla moo ñu wax ci alquran kulu min tayibaati ma razaqnaakum wala tadgaw fihi fa yaxilla alaykum gadabi wa man yaxlil alayhi gadabi faqad hawa lekk leen ci yu teey yi ma leen wërsëgal te bu leen ci bew bu ngeen ci be be bewee samak sànji dana wàcc ci yéen te samak sànji ku mu wàcc ci kawam kooka mooy ki bew mooy ki sàggan Cheikh Ibrahim mi ngi ñaan ay taalibeem yàlla teg leen ci yoonu cant mi ngi wax ne wax ni faqiral muntamina li xisbina wa naji jamia al muminina min abtila turaqihimu ya rabbi bi shukri daiman fa innaka maljal azizina muyu jallila yow yàlla yàlla nga xoomalal sama woy faggule yi nga xam ne ñoo jàpp ci sama yoon te nga musal jullit ñëpp ci ay nattu te nga yégal samam topp yow yàlla na nga leen yégalee boo leen yégal na leen yéege ci sant ndax yow yaay tàppuwaayu ñi nga xam ne dañoo lot waaye sant yàlla waxtaan ci xéewal yu yàlla xéewal jaam bi ci feeñal jeexitali sant yàlla la mooy at taxaddus bi niam bëri na ci waxi baay ku ko xamut sa bëti xool tus nga lu wut xamoo langage yi ñun yàlla da ngay sax ki demee puukaréew te ñoom yenentu mooy seen sëriñ te moo gën a xoyof képp koo xam ne dafay xoyof jigéen gis na ko rek ci màkka di lox mun naan ko oyofalal man benn jigéen bu nekkoon màkka di dundee ay sel rek moo ma jur kooku mooy sëriñ Cheikh Ibrahim bu may gis tagg yi ñu ko tagg Cheikh Mouhamadou Cheikh Abdoulaye Mauritanie rek ak ñiy wax arab ñaari volume bu ci nekk ëpp na 300 pages yëpp bàyyi lañ ko tagg ma ne dëgg-dëgg kii moo humble kii moo modeste kii moo oyof lii bu doon nit yàlla la keneen ko dul nit yàlla ku mel ni bàyyi lañ ko wax buy dox du laal suuf sax ndax gis boppam waaye moom buñ ko taggee sax dafay ruus dafay am kersa ah, wax na ko ci Nigéria ah, هناك تجانا تتملي هناك عراني حياء وخجل مال عبد ابراهيم وما له يجل ابنا كرسا اجاتي كوي كوي كوي جامب ابراهيم بان كوي ماغال ماغال دي نون الشيخ ابراهيم مل واي بو وخي سي وخ اي ماي يكو يالله ماي رك دا فا نيك ني لولو جام يالله لا تي فيجال اك تانت لا دا فاي وقتاني خيو ليغا خامني مون لاكو يالله جوخ موتا دا غاي فك سي وخم مونان الحمد لله نشأت طاهرا ما قلت فخرا بل نطقت شاكرا ماغي سنت يالله دا ما سوسو رك لاب waxuma ko ngir puukaréew waaye dama koo wax ngir sant yàlla boo demee ci manaasiku ahlil wilaad da nga ko dégg xarful fa mooy tamintu lahu wa hiya nuzuru fu wa hiya nuzuru furudu fi muy wax ne nisar naa di sadd ay way mu jëm ci janaab ci wàllu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxtu wu nekk te nisar nag dafay doon farata boo demee ca biir mi ngi naan fa minhu ataani al ilmu wal faydu wal huda wa qad fuxtu fi l irfaani man kaana yaarifu ترى ذاك شطحا أو تراه تحدثا بنعمائه أو ذاك منه تعرف فمن شاء ذا أو ذاك إنما مرادي ثنا البحر الذي منه أغرف mu ne fii bàyyi ngi waxtaan waxi xéwal yi ko yàlla may itam jaare ci buntam bi nga xam ne mooy yentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne faydu bi ci moom la ma ñëwalee xam-xam bi yàlla may ma ci moom la ma ñëwalee ak njub gii ma ne te te sóob ci sama topp te kawe naa ci xam yàlla ku dul man mune bu la nexe nga jappé lolou muy ay bébenté wala waxi ko xamné dafa màndi di wax wala nga jappé ko rek lim do moy ko xamné da fay waxtane xéewal yi nga xamné mom la ko yàlla xéewal wala muy xamle ki nga xamné ci mom la xéewal yi jaare mu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam baye mune dal bu la ci nex dal nga jël waye man sama càkkutéef moy tag geejji xéewal gi nga xamné ci mom la tànqee mu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon at tahaddus bi niam waxtane xéewal dafa bokku ci feñal ak cant yàlla da nga dem fenen بتايتي مناسك حرف آه حرف الضاد لديكم وهل ابصرت عيناك مثلي سائرا سلوكي وجذبي والعلوم فيوض كفاني في سير العناء وقادني إلى الذات لا نج عرى أو حديد وكشفي في الأسماء والذكر لم أحد حياتي إذا بعض الرجال يحيد وسري سرى في الخافقين وعقم شيوخ عروا حتى يحول جريد نخ اللي من لمن سين ياربت نخ مسنا جس من لمن شيخ إبراهيم سما الصوب يلا الصوب مو ñoddi gii mu ñoddi ma ci pay ba xam-xam yi di ball ci man waxtu wu nekk xommat gi ma xommat ma jëm ci jëmmu ja aw ci benn coono mu ne xuur sonalu ma tund sonalu ma montagne lu ma ah vallée lu ma tur yi ak melo yi nekkuñ sama kiraay terew ma àgg ci jëmm ja yàlla huññil ma turam yi déggloo ma alquran dégg goo xam ne ku dul man maa la ko gën a dégg ba pare may ma nag te am na ci góor yàlla yi ñoo xam ne ñu ngi feeñali mbóot ngir mbërëg te man du ma mbërëg mukk sama mbóot royaat ci penko xarfu te am na ñu jërmal ñoo xam ne mënu baax nañ de waaye mënuñoo àggale kenn fa ñu yegg góor ñoo xam ne ba ñu yeggee ci potam dee sukuraat ñoo transféré seen mbóot waaye moom moom mi noonu sant yàlla ne alhamal abda rusdahu asgaru atbaayi bariw min ashirki wala unii la fanaa mi ngi sant yàlla moom mi nga xam ne moo yankiwal jaam bi mbootam ba ki kën topp tuuti ci am toppam àgg na ci jeex ci yàlla wala tàggoona ak bokkaale bokkaale yàlla loolu ci buntab sant yàlla la ko bàyyi waxee waaye toroxlu gi bàyyi di toroxlu jëm ci yenentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te taalibe yëpp war nañ ko di ko xalamee bu ñu jëmee ci seen pays sëriñ mooy toroxlu gu mat sëkk ba muy njëkk a dem Medina mun a war a wax nañ ne nettali na moom moo wax ne ba muy daf ne chauffeur bi bu ñu agsee Medina rek wax ma ko mu simmi ay dàllam bàyyi ko ko wax ne ay bagage am nañ ko ko yóbbu fa ñuy dal ca buntu Medina la doxee ba ca raw di yenentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye déggal ni muy toroxloo ci kanam yenentu bi 1954 xasida bi nga xam ne ma ngi ko bindee ca Paris euh, première visite am ca Paris dem nañ ba ci appartement ba mu ko bindee septième arrondissement rue Vano euh, euh, ca gannaaw ministère de l' éducation nationale ca boori Tour Eiffel xam naa ne amaa xubbu diyaari saxab na qalbi lakin xubbu man sakana diyaara jéem a xentu jeex itam moo ñu fa yóbboon folo la bindee xasida bi muy mënal qalba xubbul haashimi falam anam bi baari za xawli raaqiduna ولم أرم ومن يبتبي دليدك مرم أرى يا رسول الله عبد مغفل تحمل أوزارا وغيرك لم يرم يبي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم جام بساقان دمول نيول أنو أي بكارم تساكور كما يو برمسي بركو بكار يو قصيدة بي آه، بيتي بي كيسنا لاتر بو معروف لشي عبد الله بن دباي كان ابو مجري تيان تبي داف بس مالا جري تيان تبي بن لاتر بي بن بن بن لين بن بيتي بي رجل ñoo ñoo xam ñoom ñoo xam ni ñuy wax ak baye ak ni ñuy jottali ko ci moom pour seen soxla faju benn benn bayti la def ci lettre bi mooy alaa ya rasulallahi abdun mugaffalun taxamala awzaaran wa geyraka lam yarum wasalaam noonu la teewee ci kanam Baye teewal ay soxlaam di jottali ko ci moom Baye teg ci ne fa lam yati abdun bil jaraimi zairan maqaamaka misli fi lquruni wa fi l umam jaam masta teew ci sa kanam indi ñaaw ñaawteef ak bàkkaar yi ma indi ci moo xam muy ca maas yi weesu kenn mosulaa ñëw indi li indi ci ñaawteef لي دي موي حبو النفس غوتي بوبام لا دي مي غوتي سا بوب خيتو سانت يالا لا نك استاذ ابراهيم محمود جوب سوني باي مو ني دا فلاج باي سفيان كي لون جوبلو تي دي غوتي سان بوب لي ليك دي واني سان بوب دي واني سان درجه دي واني نون سوفيك نون خيبو مو ني باي نكو داني واني ني بو تاخوتو لك مباخ اك يالا نون لا مل بو تاخوتو لك مباخ اك يالا اك تابيم تي نيوم نون لا ني بني نون لا مل موتاخ ني وخه لول موتاخ باي شاب قرني وهو ذا العيب زائر fa ma aswaal isyaana wa shey bu fi limam ma man samak maas yëpp bi jaaw nañ samay bakkaar a ngi dolleeku waaye waaye bon na nekk ci ay ñaawteef gannaaw boo xam ne sa sa njañ ngaa ngi weex tàll ngir ba jaaw mu ne li ma enu ci ñaawteef day buñ koy enoon àll yi mu ñuul lëndëm xam nga ne koon kooku dafay gotti boppam mais gotti boppam ci xeetu sant yàlla la waaye toroxlu googu muy def ci pays yénantu moom lay def ci kanam Cheikh Ahmadou bàyyi ngi nettali bi mu àggee ci Cheikh Ahmad Tijaan radiyallahu anhu mu ne dañoo ñu agsi wedem mënuñoo wax wa wajamna min al mahabati xatta la kalaamun minna wala imaau mu ne dañoo ñëw seen làmmiñ damm bañ demee ba xaal boobu ba xiqi ci xaal booba mu ne ca la commencé nag jo jooy yaa ca topp muy jooy jooy yu méttee métti ci kanam Cheikh Ahmad Tijaan radiyallahu anhu ba waa dariix bi ñëw di jël ay ronkañam ne dañ koy dañ koy barkeeloo jooy nag ci mbiri góor yàlla yi la bokk sëñ Omar suñ maam sëñ Omar Fati Diallo daana wax ne nit yàlla yi jooy ci seen mbir lañ bokk foo leen fekk ña nga jàq lool di xekki-xekki mu ne foo leen fekk ña jàq lool di xekki-xekki jooy ci seen ci seen mbir la bokk nettali nañ léegi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy sangi aarifina yi jooy yi métti yooyu mu doon jooy ba suñ ndey Aïcha nettali ñu ko waaye bàyyi toroxlu googu moom lay feeñal ci kanam Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mi ngi wax boo demee ci tibur am faas xasida bu boobu nga xam ne boobu demagut ci kanam Cheikh inna ibrahima bna abdi ilahin abdukal qinnu laysa zaka majaza man maay ibrahim doomi doomi alaji abdoulahi sa jaam bu ñuul bii nga xam ne dafa jo jaam boo xam ne geetu genn xeetu sang jegewu ko te mu ne man bàyyi nag bu ma ko waxee lii du majaas de du figure de style rek de li may bi may li may wax lu am la boo demee ca biir xarfu chine da nga koy dégg muy wax ak cheikh naan ko ay yatruku miskinan bi axlafa daiman ka bawli bairin wa huwa lil madxi naaqishu jamiu sihaabil xadmi haadin wa muhtadin bi barhama hada waxdahu نيل فاحش يتركني بالقرب منه مدنسا ومن كفه الغاسل ذا يتفاحش يتركني دهري كأعرج دائما وفي الكمس وفي الكف أمسى عارض والفرائش باي من سيدنا الشيخ مسكين بيدك الأمر دارا doye دي بمني تور نوخي جلم وقت وينك من waxtu أي وي mi كوتيو sadd ay woy jëmale ko ci yow bàyyi mu ne man rek damaa ci doy waar mu ne taalibi cheikh yi ñëpp a baax ñëpp a jub moom rek moo ci doy waar xam nga ne lii bu ko bàyyi waxee da xam ne dafay gotti boppam waaye moom mooy suñum cheikh Ahmadou Tidiane radiallahu anhu mooy ki nga xam ne wax na ca Conakry ne ah donn naa cheikh Tidiane donn loolu ma mbootam may ki nga xam ne maay wakiilu sirri sirri man la dénk mbootam mboot mi hmm? mat na bàyyi ne naka laay jege cheikh Tidiane di tilim te njàmpe gi ci loxoom la nekk du ma bàyyi mukk ma tilim fu mu jaar ragg ma ba ma set mu ne ndax cheikh dana ma bàyyi sama dir ak jamono ma nekk koo xam ne euh, dama lompoñ di soox te moom ci loxoom la niir wi nekk ci loxoom la luppaa lupp yi nekk maanaam ci moom la xéewal yi nekk ci moom la xéewalu gi nekk kon moom nag du ma seetaan mukk may manqué manqué googu ba pare di nekk ci wetam kooku mooy Mawlaana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu lii daal ci gàttal moom lañ tënkoon pour waxtaanee ko ci jeexitalu sant yàlla ñeel ñi nga xam ne ñooy woy sant yi sant dafay dolli xéewal sant moo tax ñu binduñu ku santut da ngaa weddi xéewal te weddi xéewal tooñ la alquran boo ko toppee dana lënkale léeg sant ak muñ ndax ñaar ñu fa nekk muy jalaal ak jamaal Euh, jalaal ak jamaal nag moom la jaam bi di doxee ba yegg ci xabdoor bastu bu yeggoo ci xabdoor bastu di doxee ñaari tànk tànk yooya ba yegg ci unsu ak haybatu mooy di wettali ko yàlla ak di xalam ci màggaayam gi ba na mi àggee ci mat gu mat sëkk ba egg ci ngërëm ngërëm gi Cheikh Ahmad Tidiane di wax ku yegg ci ngërëm nag mooy koo xam ne lépp loo xam ne yàlla dogal na ko rek yow gërëm nga ko loolu la tënkoon ñu ngi ñaan yàlla euh, mu gërëmal ñu sëriñ bi te fayal ñu ko yàlla bu jotaay bii nekk suñ jotaay bu mujj yàlla ma ñu yàgg fee dajee yàggal guddal fan Cheikh Mouhamadul Amin guddal fanu magam Mawlaay al Khalifa Cheikh Ahmadul Mahi Ibrahim Niass continuer mébét yi nga xam ne seen baay amoon na ko ci ñoom mooy ñu taxawal diine di ay soldaar yoo xam ne daf leen a tuddee soppeem bi ngir ñu taxawal diine te taxawal diine mooy lan woon nit ñi ci yàlla jàngal ñi xamutoon waaye mooy lan mooy fexe ba jullit ni di coopérer di dimbalante ci biir réew ak bitim réew te ñoomu ñoom loolu ci lañuy def seen guddi ak seen bëccëg yàlla mën na loolu yàlla ñu yàlla yóbbalee sa dund bi ci barke alxuraan karim barhaamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujjal faydu tijaan jox ñu ñuy naan